Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf saltige bi fi ne woon sénégalais jël coupe d'Afrique 2013 la bëgg ngeen dem nekk observateur nee na beneenati waaye bile moom c'est foutu Joseph Koto ak i gaayam xañ nañu ko ubbil journal bi la xewoon keroog samedi ca stade Léopold Sédar Senghor yéenekaay bi dañu romb nab catastrophe ab catastrophe la Sénégal doon yaakaar a dóor Côte d'Ivoirien yi lu mu dee dee ñaari bal ci dara far Côte d'Ivoirien yi dikk dóor leen ñoom ñaari bal ci dara direct info nañu Didier Drogba moo fa jaar dugal ñaari bal stade ba salfaño Sud Quotidien nañu la taal Ndakaaru Didier Drogba la ndax ndax ab coup la am ne ko pëyi ca biir ñu dem ba ca 73 mu amati penalty ne ko pëyi ca biir stade ba fàq wal fajiri grand place nañu max ba na mu demee moo di jël nañu ñaari bal am juróom fukki nit ak juróom-ñeent yu jëlee gaañu gaañu boole ci kit gàcce gu rëy la Sénégal ne ko Sénégal dañu ko toroxal ñaari yoon réew mi quotidien moom xëy jéppi gaynde ba di leen ciipato cippiri tegati ngeen ñu gàcce noonu ko journal bi xëy bindee stade yéene Ousseynou Diouf footballkat bi nañu ci populaire bettu xamoon naa ne nii lay demee ndax Sénégal amuti entraîneur ña ca baaba ne ñooy entraîneur ya biteelum ndoxaleen fa tane journal bi nañu loolee Alaaji Diouf mi ngi ko wax ci RFM ci émission DJ Kolos Kolos moo ko woon di ko laaj gis-gisam ci match bi waaye wax na leen lu jara gedd bal bi bañati football ci àdduna bi ba ko DJ Kolos di laaj ci émission bi Alaaji Diouf wax na DJ Kolos ba la Sosef bi dañoo ba ma defar sama liste loola danaa ko sélectionné mu ñëw football si Diouf ne yàlla baax na ba mu ko deful ne su ma wowoon sax du ma ñëw ñi ngànk football bi ci réew mi Alaaji Diouf ne Didier Kolos la ma waxoon tey laa ko gën a wax ay mbaam lañu duñu dem duñu dikk ak cuune la ñuy doon te ku nekk ci cuune munoo def lu dul jëfi cuune Diouf ne Joseph Koto mi ñu dénk équipe nationale bi mi ngi mel ne nga jër moteurub diesel di ko teg ci Ferrari du dem du dikk Alaaji Diouf ne lu dal équipe bi di Sandar que Joseph Koto moo leen ko teg Walf Fadjri ne ko waaye muy yow di Alaaji Malick Gakou ak mbëri lu dal équipe nationale bu Sénégal yéen a leen ko teg observateur nañu coowa nga ci biir équipe bi nee nañu Bouna Koundoul mooy ki nekk ci équipe bi te lu fa xew mu dem waxi ko Alaaji Diouf mooy tób bi maître Augustin Senghor dikk amee fédération football bi ci Sénégal nañu ci bi la ma xamul moo di ay doomi Sénégal di jóg def seen kemtalaay kàttan ngir lu daaneel équipe nationale bu Sénégal loolee xaw ma ko la ñu bëgg a xam Sosef Koto wax na ko ci observateur moo di nee du démissionné tey du démissionné ëllëg dafay wéy di toog ci banc bi ndax lajjul libération ne ko yow nag yaa ngi ñuy bëgg ñëpp mën leen a tëlee la ñu bëgg Lamotte di Abdoulaye Sow Moussa Diaw Dieng Papis Demba Cissé ak i ñoñam maître Augustin Senghor Amadou Kane ak Ibrahima Touré yéen a bi nañu ñi la ñëpp ak seenu mbaboor dañoo war a able ndax toroxal nañu équipe nationale bu Sénégal populaire nañu toroxtaane gaa ngi ñëw li am weesu musiba ndax bu weesoo Coupe d'Afrique 2013 gi ñu nar a am na leneen lu nar a ñëw moo di ay daan dana bawoo ci kaaf gale suñu ndodd mën naa dem sax ba ñu xañ ñu du monde bi ndax loolee a ñu defee jëf ju ñaaw ji keroog ci stade ba ba noppi dënn yi jóg nit ñiy fippoo ko tojantey bopp Pape Ndiaye soirée deful lu dul bàyyi ba 5 heures du matin mu jëlub otom taal ko dem ba casino Cap-Vert fekkante fa ak Alaaji Diouf ñuy toog di bége